Toujours dans votre journal People de la semaine à la présentation, c'est Seydina Tange Tandiamou Serigne Salou sur VIP People TV su abonné vous pouvez vous faire fàtte bés cloche de notification pour vous. jot une vidéo cette année. dañuy dem une vidéo de si mais capitaine Touré tu wàllu hmm. le la nit warul jël di ko une sécurité dañu la def quelque que soit alpha parce que si tous les si tous les policiers et tous les gendarmes ñu ñu dénk dossier ñëw nañu am lu ñu comporté woo ba nga xamni ne li dama sentir leneen fan lañu jëm tial kenn du jël kaw capitaine Touré diko def promotion diko ko joxe comme exemple parce que fi mu nekkoon ñoo ñoo yor réew si Ousmane Touré capitaine Touré bu defee faute bu exemple bu sénégalais. wa légui wara jël diko publier publicité léegi ak mom and ak. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo boobu nga xamante ni kii di activiste boobu di Abou Diallo def na ko ak suñu naataango yu Sénégal set ginnaaw loolu nag coowal capitaine Touré moo jugaat ku nekk xam na ni capitaine Touré depuis problème mu Adji Sarr Ousmane Sonko ba tey coowal capitaine Touré def ci génn ñi ngi koy dégg fu nekk capitaine Touré boobu nag moo nekkoon ca section de recherche bu Colobane bi nga xamante ni am na benn partie enquête boo xamante ni moom moo ko yoon ci dossier boobu ginnaaw loolu la ñu gis ay PV yoo ni dafa fuité ñu jamoon ko baaraamu tuuma ñu ne moom la ginnaaw loolu la la koy yoon yoon euh, jëlee woon foofu ca place bu mu nekk maanaam ñu dégradé ko ba noppi daal di koy raje def ko sous réserve ginnaaw loolu nag gis ngeen coow lu bare doxoon na ci déglu capitaine Touré boobu ñu ne dafa trahir euh, maanaam secret de l'État ku nekk xam nga ni gendarme bés boo nekkee ci enquête wala truc dafa am waat boo xamante ni da nga koy def mais nag ñu bëri dañuy jàppoon ni que capitaine Touré dafa trahir moo taxoon État teg ko daan yooyu ba ñu jëlee ko gis ko nag mu am benn rapprochement ak leaderu Pastef boobu di Ousmane Sonko ba yenn saa yi sax ñu gis ko ay plateau de télévision yu bëri loolu nag après loolu am na beneen coow bi fi jiboon bu ñu dee Qui di e IAM recruté na en tant que professeur ay natalam génn ginnaaw loolu aussi e IAM dàqaat ko fofu parce que nee nañu capitaine Touré amul sañ-sañu war dem jàngale ji ndaxte dafa élément sous réserve ginnaaw loolu tamit ñu gis ni que ci maire de Dakar Barthélémy Diaz Momit recruté ko en tant que conseiller fofu ca mairie ba bu mu recruté nag soulevé woon na ay coow lu bare ba président de la république Macky Sall yëkkati woon ay kàddu xam ni que maire da nga war respecter contexte yi ak charte ak loi lu mu bind du ku la neex nga jël ci neex wala nale wala nangam sangam ci biir loolu nag kii di Abou Diallo momit it na ay kaddu tek ko ci nee capitaine Touré du nit ko xamanteni war nañu am confiance ci mom war nañu am colté ci mom en tout cas du samay kaddu kaddu Abou Diallo la sénégalais yi ñoom ñooy déglu ñoy sétane ku ci nek moo yor sa xel ku ci nek moo yor sa commentaire comme nuñ koy waxé le commentaire est libre en tout cas nañu bayyi xel bu baaxa baax ci yenn kaddu yi ak yenn genre di ndax té manipulation bi nee len jamono ji ñu toll depuis un certain temps fi ci Sénégal kenn xamatul kan moy wax deug kenn xamatul kan moy wax lu safaanoog deug kenn xamul kan mo xamanteni ni intérêt Sénégal moko ñor kenn xamul ndax intérêt personnel parce que ñëppay pëccaxoo ci langue ji ku ci nekk dugg di jëfandikoo askan bi xool souffrance askan bi mais tôt tard ay pëccaxoo la yi jot na daal sénégalais yi toogaat dal ànd ak daal ku ci nekk utiliser xelam liir bu baax a baax ci ay bëtam xool lan moo doy xolam ak lan moo ko dal pour mu ànd ci ñu moytu poccoxoo bi ndaxte Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar bés bu gaal bi sooxee ku ci nekk di nga ci am part de responsabilité te ku ci nekk di ñu ci ndaxte Sénégal nee naa leen ñun ñëpp ay mbokk lañ en tout cas nañu bàyyi xel bu baax a baax ci yenn décision yi muy kàddu yi nga xamante ni kii di Abou Diallo activiste yëkkati woon na ko jëmale ko ci kii nga xamante ni mooy capitaine Touré mu nekkee suñu naataangoo yooyu nga xamante ni ñoo nekk ca Sénégal 7 ku siiw yéen a ku siiwal dëgg la ku yàqu yéen a ku yàq dëgg la man li may la